Ah, parce que Macky Sall ci boppam félicité na mhm. donc nangul nañ ko lolou day yombalal euh, liggéeyu euh, commission départementale nga xam ne fa nek di njuuj njaaj yooyu di jëm euh, balance ay chiffres dañuy dañuy dañuy wax rek li génn ci urne yi mhm. te lii moom résultat yi opposition gagné premier tour au Sénégal mu ngi doga am avec ce score là qui frise le plébiscite. ak aussi ñu génn félicité la 57 bi dafay évoluer. day évoluer sax day yokk dafay dafay évoluer parce que. 60 la jëm de. boo xoolee. Ziguinchor ñu ngi presque à 80 vingt pour cent. Ah, ba pare ñu ndogu rek avant juste ñu ndogu rek nit ñi commencé nañ jubilé en plus de ça nga gis candidat yi nga xamantene ñom ñoom la doon bokkal. jongante bi génn diko féliciter hein? Ah. le même jour le même jour ah le même jour. Ah. moi li ma wax rek sànq. moi euh, li mm-hmm. ma la expliquer euh, mm-hmm. euh, je pense que qui am nañ ci yaakar mm-hmm. euh ci discours boko déggé ko déggee aussi. man xamna né il est bien encadré. parce que naturellement wa Pastef sen force mo nekkoon dañu bëri ay intellectuels yo xamanteni musu ñu am ben coloration politique après la am ay magi Pastef gis nga magi Pastef yoy ak ñu graw ay jeune lañu mais dañu am ay magi Pastef tapi dans l'ombre lañu ay mag lañu yo xamanteni c'est des personnes âgées mais yu am yu igri yo xam dañu am expérience état yag ci état

et l'indépendance. Ils nous ont toujours mélangés. Nous avons mélangé l'histoire de la parce que Christus Boko est l'histoire. Nous Blaise Diagne. Blaise Diagne, un élément France, type, D'ailleurs, ça m'a convaincre pas, créé créer corps tirailleurs sénégalais, à qui nous avons 1881 ak ki le général Faidherbe nous créé le corps des tirailleurs sénégalais Nous yóbbu ci guerre boo xam ne suñu yoon des milliers de sénégalais tirailleurs sénégalais Nous ci. nous pare ñu créé li nga xamante ba guerre bi première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ñu war ñu fay suñu xaar japp paaya ray ci kancaaro yi man toujours ci combat bobu ci la parce que man ma yoré fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais. ñu 14 14000 membres dont je suis le président élinement mm-hmm. en Guinée Conakry mm-hmm. donc dossier boobu lu ma xam la ñaari yoon sax su ma euh, déposer visa France dañ ma koy refuser parce que man personnalité laa boo xamante ne arrangé wu malen parce que limay may wax seen histoire dérangé na leen mm-hmm. mensonge d'état bi ñu wax né 35 euh, tirailleurs militaires lañu ray 35 blessés du mënu ñu quitter 1750 ñu ñëw ray ñëpp caaro ray suñu diggante ak France musta and and bo xamné and bu sincère la té limay wax luma gëm la luma xam la man duma and ak nit pendant 300 ans ngay avancer man ma taxaw fi ma taxaw wax ma ban pays africain mo fu yor français fa tay ji am développement ak économie ak ak am indépendance monétaire ba paré li ñuy def mo gëna dangereux. dañuy mélanger suñu dirigeant moo mané ma c'est un terrain glissant. Mhm. na nga def ndank sa diggante ak France. voilà bu baax ak décision boy jël. foofu sax laa bëggoon ñëw gay parce que gis nañ mu tàllal loxo ñëpp opposant yeeg partisans yi ñëpp mu tàllal leen pour ñu ñëw liggéey mais est-ce que tamit jotul mu def il faut mu tamisé ko parce que tamisage bi day am solo lool euh, Clédor parce que li fi li fi jot a jàll la li fi jot a jàll depuis 2021 dañu dund Sénégal dafa dund dafa nekkoon ci guuta bu méttee métti nit ñi rey ci seen ay seen doom ñàkk ci ñi nga xamante ne moo di ndóol bi gën a yokku kon day jot mhm. fi jot bëgg sax mu ñëw fa mhm. mooy France bépp dirigeant boo xam ne yow chef d'état ou le dirigeant n'êtes pas en Afrique tu ne fais pas leur politique personnellement vous def tout tout tout pour effacer la war ñu xool nous ñu liquider te dama lay en commençant par Khadafi. Thomas Sankara Steve Biko euh, euh, Julius Nyerere Ahmed Sékou Touré nous, ñi fi discours nous si la France te félicite c'est parce que vous êtes mauvais pour ton peuple si France, la France ne vous aime plus, c'est parce que vous êtes quelqu'un de très important pour votre pays et votre peuple, votre mm-hmm. population. Si nous regardons, cet intérêt peuple sénégal, c'est le peuple. Mm-hmm. Et non, li ma doon que naan CEDEAO bu mu nekk CEDEAO des peuples et non CEDEAO des africains. waaw parce que gisoon nañ un moment. des CEDEAO mm-hmm. ba fa Ousmane Sonko orienté. regarde dafa demoon ba nekk CEDEAO chef d'État, état bañ CEDEAO des peuples.

naxaate dafa jeex Sénégal France ñun suñu coopération dafa war a nekk lu bilatéral. Mm-hmm. du ñu tag lien bi de. Mm-hmm. France CFA bii danañ ko càmbar ba xam ñun exactement condition yu ñu ko joxee 1945. Mm-hmm. ak léegi. le France CFA ñoom la France paye. par les autres états. sur ses devises. yoo xam ne ñu ngi ko jëlee fii en Afrique muy l'or mais nous pays africains qui ont fait des d'engager traité avec France d'aider CMR mhm. fabriquer elle créer une banque mhm. BCAO mhm. banque centrale des États de l'Afrique euh, euh, comorienne banque centrale des Afrique de l'Afrique centrale banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest Nous avons Valem Taglenfa du fabriquer et Le président vous ne pouvez 10 milliards nous avons 10 milliards de la mal que garantie ce 10 milliards m'égale 10 euros Nous avons un chiffre pour m'a en 1945 un, un, euro, un, franc français. Était égal à 50 francs. Un franc français était à est égal 50 francs 50 francs CFA en 1958. 50 francs ñu koy réduire di ko réduire ba euro bi ko créé ñu ne 1 euro égal 650 francs CFA. Mm-hmm. Afrique tollootuñu fu ñuy toogee di bàyyi tubaab. Mm. naan ñu seen monnaie nii ngeen koy doxee ak nii ak nii ak nii. Mm-hmm. ñun ne rejoindre les bosses là. Mm-hmm. ñii di wax sayel booy yooyu. na leen jomaay déglu surtout c' l'union qui fait la force amna na ñu wax ci biir commentaire yi. ne déglu Assimi Koïta. ne déglu boy bi nek Niger. ne déglu ñum gis nga cdao bi ñu génn nañu fexe reconstruiraat cdao bi. mu nekkaat benen cdao nouvelle formule. bo xamné ay nouvelle génération ñok jël. mais lima lay xamal dal moy ki di France. dañu am seeni valets. ils feront tout pour défendre cause boobu. Mm. dinañ top ci Bassirou collaborer la France nek la France ni mais dañ ko waxte Abdou mais haricot France la Macky Sall li ko ci la Abdou Diouf dafa tafu ci ko ne del del des déglu la sax petit palais fa la hein? amour nañ France mmh. ñaata at ñi ngi nek ak mom lan ñu jural dara mmh. dara dara dara dara te pays yi ko baye pays yi ko di mmh. ci Maghreb bi lan Algérie Maroc Tunisie Ñom ban est-ce que Français fa lañ yor. non ñom dañu am sen monnaie. dañu am sen monnaie mhm. mais lan moo tax ñoom ñu fexé ba am sen monnaie di évoluer di dem ñun nak ñu ñoo. français fa bon koy rek dootu leen évoluer. au nom de quoi et puis ni c'est dangereux de. c'est dangereux d'avantage en plus man li ma jaaxal d'or moy toujours la France dañuy top ñun wa Sénégal. parce que comment se fait-il que ñu ñu doon toogaanu Bassirou Diomaye Faye ci première déclaration bi bari na. manam mhm. ñi nek ci euh, au niveau international. Mhm. mais France mo ci njëkk a génn ci est-ce que loolu intérêt lalu loko si intérêt ko lal parce que mom dafa ne toujours. mom mom moom Sénégal. Mhm. c'est ça. Mhm. mais est-ce que aussi Diomaye dina mhm. nango ñu ñëw aakimoo li nga xamantene ñun mom lañu ñu ah en tout cas France euh, intérêt muy muy muy Afrique. France comme koomam mu ngi jëlé afrique Afrique. Euh, Poutine néna euh France ku koy xeex fexé nga libérer Afrique rek France daal kon ñom comprendre nañ lolu à telle enseigne que fimu nek ni ñu ngi jonkan di président Bassirou Diomaye donc nous euh, mu nekk euh, partenariat gagnant gagnant gagnant surtout parce que da ngay xool lu mel terre bi nous mhm. ñu jënd terre milliards mhm. bi yi di France di dem directement pièces yi France mhm. ba noppi di ci budget pour subventionner ticket yi. Mhm. pour mën a jar téeméer ak francs 1500. mille mhm. du politique bo xamni intérêt Sénégal ñun gagné wuñ ci dara. dal di loué ben batu courant bo xamni ni Turquie la joggé pour mu approvisionner terre bi en électricité. Mhm. charge yoy yëpp pour rek prestige Sénégal capitalam amna ben train bu moderne bu ñu woyé terre. bu fay daw ci 30 kilomètres. je crois que politique yoy buñ ko réévaluer France du ci gis bopam mais ñun dinañ ci gis suñu bop donc suñu devise ñuy téy buñ ci joté France du ci gis bopam mais ñun dinañ ci gis suñu bop les termes de l'échange suñu 10 bi nga xamni mom lañu am ci suñu ressources. su fekkee ni xolaat nañ ko à la hausse. France du ci gis bopam mais ñun dañ ci gis suñu bop sen base militaire yi nga xamni ne ñu ngi tok ci ay hectare hectare yo xamni dafa tim geej té dëkk bi war a nekk dëkk bu développé te Ablaye Wade nangu woon ko Macky Sall delloo leen ko ñoom je crois que bu ñu bu ñu jëlaatee suñu moomeel googu je crois que du leen arrangé ñoom mais ñun dañ ci gis suñu bopp parce que mën nañ ci am ay projets immobiliers d'habitat yu yu yu bakkene yu mucc ayib donc loolu suñu ay patrimoine la kon ñoom France pour bañ a ñàkk lépp ils sont obligés ñu nangu condition yi leen président Bassirou Diomaye tegal parce que fi mu nekk nii mhm. ñun ñoo moomee vent ñun ñooy décider parce que Areva mi nga xam ne dàq nañ ko fële euh, Niger. Niger mooy ñuy liggéey uranium bi uranium bi. Mm-hmm. nee naa leen démb jënd nañu fii benn société euh, sud africaine bu tudd Uramine. boo xam dafa amoon permis. Mm-hmm. pour euh, exploiter uranium kédugu kédugu en 2007. Mm-hmm. Areva société boobu ci boppam la jënd. kon suñu uranium bi nekk fii ñoom ñu ngi ci waaj a teg loxo. teg nañ ci loxo ba pare mais ñu ngi ciy bàyyi xel parce que tëjal nañ leen ay buntu Niger donc day gëna am importance mhm. ci ñom te doxal sen centrale nucléaire yi aussi moy doxal mooy ci la am courant mhm. légui nu mu tuddati euh, man maa ngi maa ngi perdre le fil sax mhm. bo joggé ci uranium bi nga ñëw ci zircon bi zircon bi dañ ko joxone ben société australienne bu tuddu MDL Mineral Deposit Limited bu jogo bi mais France fexe na ba dugg ci ci ben société bu euh Eramet ak Tizir nga xam ne ñoom ñoo teg loxo. ci gisement wu zircon bi parce que ci wàllu nucléaire zircon dañ ciy defar benn weñ bu weex boo xam dafa supporter tàngaay ba 2950 mille degré. du dilaté wu maanaam du yokku. du euh, def dara day intact. Mhm. donc réacteur nucléaire dafay tàng 700 cent degré kese la par rapport ak tàngaay bi zirconium mën a supporter maanaam zircon buñu ñu mu nek wañ day oxydé wu moo tax dootul zircon zirconium lay tudd légui mbar bobu c'est ben genn la bo xamni ci ngay dugal uranium bi xam këru centrale nucléaire kon mëno am doxal centrale nucléaire te amoo zirconium bobu mm-hmm. nga xamni ci zircon lañ koy jóge mm-hmm. jëlé mm-hmm. donc motax ñom ñu tek loxo ci minu zircon wu jogo bi ci sen société bu tudd Eramet ak Tizir c'est des français

mooy autour à péage heureusement loolu am na am ci résorbé mais bëriwul mais également mm-hmm. grande tortue GTA suñu gaz bi ñom dañu yéex ñew mais ñu ngi ci duggal seen loxo bu baax a baax saypem filiale SAIPEM mm-hmm. euh, filialu euh, Eiffage la mm-hmm. mu ngi ci travaux marins yeeg sous-marins parce que ma ngi wax démb voile béton bi ñu def pour protéger installation yi euh ngacc gaz bi ñom dañu ko bëgg fayeku ad vitam aeternam comme Jean bàyyi ci suñu biir geej mhm. ñu ñoko mom parce que defar nañ ay bloc béton ñu diigal fofu té bloc béton yi. Mhm. fi lañ ko defaree port portu Dakar mais grava bi ko lal manam xeer yi lalu ci bloc yi blanc nga def ci fond ci suufu geej bi. bu mu bañ a mu nga joggé Mauritanie. Mhm. fa lañ doon jëlé basalte bi. diko diko diko ko di ko diigal ci fi ñuy war euh, euh, bloc béton yoyu. Euh, yu ñu tuddee caisson am donc lolu ñom dañu bëgg di ñu ko fayeeku tout le temps yooyu nak je crois que Sénégal ak Mauritanie waruñu ko nangu. donc foog ñu am benen xeetu coopération ak France ak ñeneen ñi dul France. pour jiital ci ñun suñu intérêt ak suñu ay bëgg-bëgg. c'est la même chose ci ci ci ci contrat de pêche ak yeneen contrat yu mënti doon. je crois que Sénégal mu ngi ci buntu na naataange parce que buñu momé suñu bop rek buñu nango nangoo li ñu moom. ci tubaab bi rek en tout cas jeunesse bi wala peuple Sénégal pris une décision mhm. pour relève. Mhm. pour rupture et j'espère que changement bobu dinañ à la hauteur mais il mhm. ponk bi nga xamantene rek dañ koy tout à l'heure ci aborder déclaration Faye comme opposant comme partisan hein. mais aussi est-ce que laaj ñu pour prudence. parce que li ñu nguur gi la ko ëmb dafa dafa bari te dafa bari si lu ñu jógee ba ñëw tey fii ñu euh, egsi prudence boobu